ñu yóbbu ko koot waaye doomi jullit bi jigéeni jullit bi islaam jàngal na doomam ne ko sa yaay dey moo ëpp ak bépp mbindeef ci kaw suuf gannaaw yàlla parce que am na ko musa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko laaj ne ko kan moo gën a yelloo ma ànd ak moom ànd bu rafet mu ne ko sa yaay mu ne ko ba pare kan mu ne ko sa yaay mu ne ko ba pare kan mu ne ko sa yaay ba ci ñetteel mu ne ñeenteel bi mu ne ko kan ba pare mu ne mu ne ko nag sa papa kenn du wax ne jigéeni jullit islaam fonk ko moo tax yow suma mbokk mu jigéen mi xëj na time li ma doon war a wax yëpp time du ma ko jox li ma laay digal yow suma mbokk mu jullit mi mooy ne nanga nga moytu roy roy bi ma doon wax ba pare di jéem a jikkoo jikkoo jigéen boo xam ne bokkuñ ak moom aada bokkuñ ak moom cosaan bokkuñ ak moom diina bokkuñ ak moom jubluwaay te bul kafe bul caaxaanee bul doya dal sa mbiri diina soo ko defee rek am na ñi nga xam ne ñu ngi fi taar rek di la xaar di yëpp yow rek lañu xaar pour njëkkalante nag jëm ci yow lu tax ñu jëm ci yow mooy sa umma sa xeet moom lañ bugg a tas nuñ ko bugg a tasee yow nag yaay bunte bi nga xam ne mooy gën a yomb ak ndaw ñi parce que maam Bintu wax na ko fi ne bokk na ci axi doom wala xale ci islaam ñu tànnal ko yaay ju baax yaay ju baax jooju ñu war a tànn mooy yow yow yaay ji soo baaxut doom du baax su doom baaxut kër du baax su kër baaxut dëkk du baax réew du baax société bi du baax su ko defee yépp yàqu moo tax bu boobaa na nga xam yow yaay kan na nga xam sa gëdd na nga xam ne jigéen jële bu la ëppalee alal wala mu ëppale la luy feeñ ci biti nga xam ne matériel ne matériel am yow amuloo ko yow tam ëppale nga ko loo xam ne am tam amu ko soo demee bu ñooy def statistiques yi di compter jigéen yi wala nit ñi nga xam ne ci àddina bi dañoo rey seen bopp di xaru ndik naxar du doon sax naxar boo xam ne day jar na ko ci ñoom la ëppee parce que amuñ diina yow mi nga xam ne diina jàngal na la ne nga gëm yàlla gëm yónnent bi gëm yónnent mi indi gëm téere mi mu yónni su ko defee nga gëm ndogalam liy jàmm wala liy safaani jàmm nga gëm ko su ko defee boo gëmee loolu ci sa xol di nga xam ne lépp lu tegu ci suma kaw yàlla moo ma ko teg te dama ko war a muñ moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa mu ne daal xaalu jullit daal yëpp yëpp yëpp daal jàmm su ko jàmm dalee mu sant yàlla mu nekk xiiwal ci moom bu ko musiba dalee tam mu sant yàlla ci mu muñ ci loolu su ko defee yàlla defal ko ci xiiwal defal ko ci yool kon maa ngi lay ñaan yow suma mbokk mi di dénku suma bopp di la dénku ne yow yaay yarkat bi njëkk bala xale ba da dem school ci yow la ñëkke yaay school bi ñëkke kon ci yow la alquranul karim li yàlla wax ci alquranul karim yow yaa koy dëggal wala nga yàq ko mooy kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar lutax gën boobu mu ne yéen yéen jullit yeena gën ci xet yi lutax kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas moy ñu gënal leen ci ci mbinde fi lutax ngeen gën moy ne ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna anil munkar da ngeen di digle lu bax di téré lu bon wa tu'minuna billah ba pare nak ngeen gom yalla te amru bil ma'ruf ak nahyi anil munkar nekut wajib bo xam ci goor rek la jigen tam ni mu waree ci goor nu la waree ci jigen yow mi nga xam yaay yaay yaay yar xalé depuis ba nga ko ombé nga ko commencé di yar du ba nga wosiné nit ñi dañ foog né doom ñu ngoy commencé yar bam xamé dara nga ne ko wala mu bàyyi wala am mu jël déedéet depuis bi nga umbee ci nga commencé war a commencé di yar sa doom waroo naan dara lu xaram wala lekk dara lu xaram ci sa biir loo xam ne dina lor sa doom muy tux cigarette wala muy alcool wala muy leneen danga ko a war a avoid time bi nga xam ne ni yaa ngi ëmba ba nga demee ba wasin balaa ngay génn lopitaan bi fi nga daanee sa doom ji war ngaa nodda ci noppam war ngaa nodda ci noppam su ko defee kalimatu tawxiid jiitu ci noppam bi loolu yëpp yaay joo xam ne xamut lu bax lubah, lu bax ak lu bon du ko mën def suko bu boba suko defé mbokki jullit ñu ma wone suma waxtu bima fi am jeexna wa ñu jema deggal li yon alquranul karim wax mune amanu wa tatma'innu qulubuhum mhm. idan kon ma em fi di len tagu di five minutes ok Mune ne alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub alquran dafa wax ne ñi nga xam ne gëm nañ ba pare seeni xol di dal ci tudde yàlla mu ne ci tudde yàlla rek la xol di dale nañ ko seet yow jullit bànneex bi nga am soo amee na xar wala nga am bànneex wala sax guddi nga xat nga jàpp ba mu set soo munta naa fi la sax nga tëdd ci sa kaw lal ifin bu fekkee nekkoo waxtu boo xam ne dangay julli nga tëdd ci sa lal subhanallah walhamdulillah la ilaha allahu akbar wala di istighfar dangaa gis ne dangaay lifin sa sa sa yaram waaw dangaay am sula sa yaram yëpp dafay oyof sa bakkan fitna ba nekkoon ci sax bopp mu diis yëpp dafay oyof parce que dangaay gëm ne fi mu nekk ni day xëj na man xaala bi ma nekk su ma ci deewoon day maa ngi am yaakaar ci suma borom ne ah dinaa am njëgali yàlla yow mii yaa ngi ko am yow mi gëm waaye kële moom mi amul ngëm gomut loolu amut ko kon bu boobaa foofa tam jigéeni jullit rawee na fa keneen ki nga xam ne amut diina yow jigéeni jullit bi moo xam doom nga di nga am bàyyi joo xam ne ju am yërmande la wala mag ju góor yoo xam ne ku la fonk la wala jëkkër joo xam ne ku la nob la ku la jox sa gëdd waaye nag ñoom àgg nañ foo xam ne wali ayaas billah min dalika mun ngaay nekk jigéen joo xam ne danga am jëkkër wala nga am baay mu nekk jabar yi keneen xam ngeen lu ma minti loolu mooy ne jigéen joo xam ne sa waa doom ju jigéen joo xam ne sa papa ndeke dafay def lu taan mooy homosexuel la mu ngi am fii jabar am doom waaye mu ngaa tëddeeg beneen góor feneen yow jigéen ñi jullit rawee nga ko foofu wala nga nekk jigéen joo xam ne jabar nga fekk ndeke yaa nga am wujji góor ca biti xamuloo ko asbilah min dalika parce que gis nañ ko borom jabar yo xamne ñu ngi am seen jabar ba pare dem di tëddeeg seen moromi góor ci biti wala seen moromi góor di len teural yal nañu yalla musal ci lool lool bo boba yow jigéen ñi julit rawe nga ko ki nga xamne sa morom ma nga xamne mu nga fele motax biñ ma joxe topic bi danaka dal gisuma wajh bo xamne amna am na pour dal ñuy lan di compare amun wajhul muqarana jigéen ñi jullit ak nga xamne du julit saka ka nga xamne moy western ba bu dee fii la sax ñun suñuy aada ak suñuy cosaan tënk nañu ci ay jikko yoo xam ne boo du jullit sax du neex a xam ne kii du jullit parce que am nga li ngay rus am nga li ngay bañ waaye ñële bariwuñ loolu waxuma nag ne ñu ko am waaye du lu fa bari tumaranke na fa fi mu nekk nii kon wa axiru daawana alhamdulilahi rabbil alamin ñuy ñaanal jullit yi fi teew yépp yàlla nangu suñuy njaamu ci koor gi jéggal ñu suñuy rëcc rëccale wa yaqula siyaamana

min ye a lon ko niŋ musolu ye problemo soto sikata je ke so hakkiloo la i ñanta taamala ñaadi le kaatu ntelu baa kuwolu kono le alimamolu le buŋolu kono waate waate musolu sine niŋ kumboo doo bi je a ka ke nka kulu tamandi maŋ na minnu kela bawa bawo a ka jare fo ŋa kaadil kool ka kuwolu doolu niŋ ye kaca a maŋ be duŋ kaŋ la doo kuwo le kono bari a ka ke kuu le ti miŋ ye a loŋ ka a maneeta le a baraka toña mo mm, sohlula ñiññantomin tubaɓol ba fayti kan ay min ɗi tubabu du musolla wala mo ke fa kewle ɓe musolu fala doron munne mu kewoyala ɗo kuwo min be ka e ɓugol luwas waranta lo corda e anin musoye ɗum ñola eko kewta satala musoye min fowole mo toñate muso sa fam barama ay ala dendi ko be ke yeloti ayo yelo tabataba buŋola aye polisolu kumandi akoye ko ala fitan falale e cewmuta doro ya kalabus ya samba yete ko a soronne niyo kiitiyol le ke e cew bule ko i e kana sutiya ñiŋ musola métre keme lulu a be dawoda wara métre keme i e kana sutiya la aye feero ke aye pistelo soto waranta aye bandiyol joo yewo muso yera ya faa na ya faabe pare yaate muta ala moolu ye wuli yeta lopitano to inin doktali ye kambeŋ ye kayito funtindi ko ñiŋ a ñaale maata ye a kiitindi ye a soroŋ karidanta waraŋ sanjidantaŋ ye a bula because i ko ñaamato lem na funtita saayiŋ musoo faata le korda ye ke a taati ko saayiŋ ye wo le je ko pour i le korda ye muruyma muso min ya sis i ñanta wo le faa la niŋ ye wo faa doro i le korda be murulema le musolu ye hakkiloo tuwo to baake so luwal le mo min meteli ma koye